jaaraama mam Seex Anta yaa gëm Bamba yaa taaru yaa tabe te gëm yoneen ba sabran jamilan Mbàkke yaa wakiilo yaa wóolu rabbul xarsi maa la wóolu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah su ngeen déggee suñu kàddu xam ne ñu ngi ci ëttub Serigne Ibrahima Mbacke Ndar euh, toog fii ci mboolem njabatu maam Cheikh Anta gi ànd ko ki nga xamante ni mooy xalifa ak borom gaawaan di xalifa ak Serigne Ibrahima Mbacke Ndar muy Serigne Sidine Mokhtar Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke Ndar moom maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak gaawaan ànd ak mboolem ay rakkam di waajal bis bi nga xamante ni moom la Cheikh Sidine al Mokhtar di maam Cheikh Anta ja euh, doon baax ja maam euh, Cheikhul Khadim ni moo demoon ci géej ga ñibbisi atum mbokki bis bi nga xamante ni moom la Serigne Touba di wax naan bis bi mooy bis bi nga xamante moom laa jeglee di maam Cheikh Anta xam ngeen ñu ngi toog ak Serigne Sidi Mokhtar mi nga xamante mooy xalifa Serigne Ibrahima Mbacke Ndar di xalifa maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru ak Gaawaan di waajal bis bi nga xamante comme li leen ko kàddu léegi wax leen ko bis bi Serigne Touba gene rakkam ju baax ja Cheikh Sidel Mokhtar muy dëppoog nag dimanche le 10 le 19 ci atum ñu koy amale fii ci Daaru xam naa nag kàddu gi du gaaw du bari waaye taaw ci maam Cheikh Anta Mbacke xalifaam bi ko fi nekk di Serigne Abo waaye di ci tegit Serigne Tako Mbacke xalifaam bi ko fi nekk di Serigne Mbacke Anta Serigne Ibrahima Mbacke Ndar ki nga xamante moo fi nekk di Serigne Sidi Mbacke di xalifa ak maam Cheikh Anta Mbacke di ci woo ñëpp waaye Serigne Dame Mbacke di xalifaam bi fi nekk di Serigne Khadim Mbacke Serigne Cheikh Thioro Mbacke xalifaam bi nekkal di Serigne Sidi euh, bi ko fi nekk di Serigne Dame Serigne Moustapha Ceytu Mbacke xalifaam bi ko bi ko fi nekkal di Serigne Mbacke Anta Serigne

moom la maam ju baax ja Seex Sidal Moxtaar borom Daaru Salaam ak gaawaan woon ci ndigalal sëñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne nii moo fi nekkal sëñ gaawaan di fàttale maagal gi nga xam ne mu maagal ak euh, maam Cheikh Anta gi mag fii ci Daaru Salaam na mu ngi koy fàttali mbooleem njaboot gi sëñ gaawaan gépp ñu bokkal sëñ gaawaan muy góor di jigéen mu leen ci di leen fàttali bis bi nga xam ne nii moom la sëñ Tuubaa jagleel muy màggal ak Daaru Salaam di ci woo Cheikh sëñ gaawaan yëpp nag di mboo mboole fu ab Cheikh nekk rek te yaakaar sëñ gaawaan sëñ si neen mu ngi lay fàttali bis bi te xam ne bis bi mooy sunu bis sëñ Tuubaa moo nu ko jagleel ñu ngi woo mboolem fu ab seex nekk fu jullit nekk fu murid nekk fu taalibe nekk sëñ si nee na mu ngi lay woo ci bis bi di la ko fàttali di wax ne ndigal li ndigal sëñ Tuubaa la ndax moo waxoon maam Seex Anta ne ko bu ma jógee ci géej gi de Daaru Salaam laa yenn ko samay bagage bi mu ñëwee it fi la yenn ko fi fi la tike ay bagage am sëñ maam Seex Anta ganale ko fi ngan guréej gi nga xam ne nii mboolem yoonu murid gépp fekkee nañ ko te histoire dootu ko fàtte sëñ bi nee mu ngi koy fàttali ñëpp di ci woo ñëpp di ñaan yàlla nga xam ne nii moo am njëgël ak yërmande yàlla na yàlla boole ñu jéggal boole ñu yërëm nee na mu ngi woo mboolem fu ab cheikh nekk rek ci yoonu murit rawatina cheikh yi nga xam ne nii ñoom la maam Cheikh Anta seexu dañuy bañ a lim di juum waaye fo fop fu cheikh maam Cheikh nekk rek sëñ nee na mu lay wocc di la fàttali bis bi xam ne nii mooy màggal ak daaru nga xam ne ñu ko amoon fii di ci jiital ci woote bi nag cheikh yi nga xam ne nii ñoo njëkk a jébbalu ci maam Cheikh Anta rawatina ku mel ni cheikh Mor Diouf Ndorong aku njabootam bu ne Cheikh Mor Jundoor nag sëñ Tall ju dafa ne sunu wet di xale ab Cheikh Mor moo tax ñu tudd ko ci waaye sëñ Tall nee na mu ngi koy fàttali mboolem fa ab Cheikh nekk Cheikh Imaam Cheikh Anta yi rawatina Cheikh yi nga xam ne nii ñoo aju ci kër Cheikh Mor Jundoor di woo fu ab taal bi nekk rek te yaakaar maam Cheikh ñu ñëw ci bisub màggal Daaru Salaam gi ci ndigal Serigne Touba. ci kàddu yooyu ci la Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ibnu Serigne Ibra Mbacke Ndar di xalifaax maam Cheikh Anta tënku ngir woo mbooleem mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ci bésug maam Cheikh Anta bi nga xam ne waxoon na ne bés bi mooy sama bés fa yàlla waa ju ko màggal booy dellu am xayrul maram date bi nag Cheikh Alioune Badara tudd na ko léegi muy dimanche le 19 juin 2022 bés bi yaatu na yaatu woo xam ne Serigne Sidi Mokhtar Mbacke xalifa ak maam Cheikh Anta jox na ci cër gu yaatu ki nga xam ne jëwriñam la nekk fii kër Serigne Ibrahima Mbacke Ndar di Cheikh Babacar Mbacke Siddiqul Mukabbaru sëriñ bi nag mu ngi nee na mu ngi woo mboolem fédération dara sant borom gaawaan ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñu xam ne màggal gi màggal la goo xam ne dañ koy teg te na sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul daan woote taxzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati neena mu ngi fàttali mbokki taalibe yi kaamilu alquran yi nga xam ne daan nañ ko jàng ci màggal gi te tàmbali ko depuis ba weer wi teroo nañu xam ne tëjte kaamil bi dinañ ko def fii ci ëttu sëriñ Ibra Mbàkke Ndar ci yor yoru màggal gi buñ ci noppee dinañ ànd ak sëriñ bi ànd ak sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke dem ca xabru sëriñ Ibra Mbàkke Ndar jàng fa mu mboolem kaamil yi nga xam ne jot nañ ko faa jàng buñ ci noppee it dinañ dellusiwaat fii ci kër sëriñ Ibra Mbàkke Ndar nañu xam ne am na ziyaar yu ñu fiy def ànd koog fédération bi waaye ànd koog mbooleem cheikh yi nga xam ne ñoo aju ci maam cheikh Anta te tënku ci sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke mii bu ñu demee ba julli tàkkusaan def mise en place ngir woote fi cérémonie officielle boo xam ne fas yéene nañ koo amal gannaaw ba ñu jullee timis ngir yaatal li nga xam ne mooy liggéeyu màggal gi bu ñu noppee ci cérémonie officielle bi nag Cheikh Babacar Mbacke nee na na ñëpp xam ne guddik màggal gi dinañ ko dundal fii ci kër Serigne Ibra Mbacke dina am ay jàngkat yu yaatu yi ci am ku ci mel ni ñoom Serigne xaadim Fall ñoom Serigne xaadim Kebe ku ci mel ni na Messere it dina ci def waxtaan wu yaatu jëme ci Serigne tubaa ak maam Cheikh Anta Mbacke kon nag liggéey bàngoog woote gàngoog ñu ngi woo ñëpp ci bésug maam Cheikh Anta bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki julli yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ma Ibrahima Mbacke ibnu Alaaji Sam ibnu maam Anta ñëw fii ci turu ndigalul sama kilifa Alhaaji Daam Mbacke moom Serigne Sam maam Cheikh di wuy si nag kilifaam gii di sëñ Sidi Muxtaar mi xalifa maam Seex di ñaan yàlla mu yàgg lool te ànd ak wér te ku ko koy yéene yal na ko yàlla def ndax lu sunu borom def suul ker la waaye kenn mënu koo tere feeñ jant bi bu jógee waxtu tàkku tàkkusaan war a suux ab xaj bu jonko ne di ko baw day sonn rek waaye du tee jant bi dana suux kon nan xam ni nu am te jàpp ko ndox sëñ gaawaan ku ko am waroo ko fontoo da war xam ni li am kenn amu ko ndax karoot la jëkk wàcc sëriñ su ko mu wàcce oto sëriñ ko mu wàcce ñaar sëriñ su ko buñ ko royee mu romb leen ci ropalaan def teg mooy xut bu saman ba koy kooku mooy maam Cheikh nan xam leen am mooy lan waaye wuti feneen leneen waaye daa xam la mam déglu leen ma bakk njaaj ci mbir mi la Cheikh Anta Mbacke moo a la woon xaadim ca daaru ray na luy dox ray na luy naaw dafa tënni xaadim yéen ci muñ ko deel ko kooku ku muy sa buntu sëñ Tuubaa war ngaa sant yàlla man de Ibrahima Mbacke mii maa ngi wax ci turu sama kilifa yëpp ñu jox ma ndigal na naa wax ci seen kàddu waaye man de yàlla xam na ni ay yonent bi mi nga xam ne suñu borom moo moo leen bind bu wàccee woon jibril alayhi salaatu wasalaam ni ko sëñ Ibrahima Mbacke mi saa jàmbu tuuti boobee yebal naa la ci moom yonent baa nga toog sëriñ Tuubaa nga toog maam Seex Anta toog ko ci bëgg a gis maam Seex Anta laay wax ba lu mu si góor kar ko kon leen am nañ ko xam waaye nguti feneen leen waaye daa xam alxamul ama sëñ gaawan da daa wax ni su wéy di aw lépp nun leen sunu bàyyi jàngal ci sëñ nan sant yàlla te góorgóorlu te xam ne am bokki taalib yi bokki jullit nañ génn ci du seen yoon nekkut kër gu kër kër gu ne boo sañoon dana mel ni kër sëñ Tuubaa gee te kër sëñ Tuubaa dañ leen a jàppale dong moo tax ñu mel nañ mel waaye yoonu mu àgg na foo xam ne nangoog tefli dong nga fi des ku ñu jàppale nga dem waaye ku ñu xeex nga dem sëñ Gaawa nag yàgg nañu ko xeex ndax am na jamono yoo xam ne fii ñu bari dañoo signé sëñ Gaawa ñu exilé ko li tax ma sant yàlla gërëm ko sëñ Babacar Si dama ko bëgg te yàlla tax ndax keroog moo ak bi ñu exilé sëñ moom rek moo lànk moo lànk ni sëñ Gaawaan defu ci àddina lu tax lu ñu ko exilé dafa te ko ne boo demee ci di ko gis man de boo ma doom ji góor fii toll naa ko tudd sañ Mbacké Sylla ndax bëgg bëgg sañ gaawoon rawate nag ku ku am rek alhamdulilahi rabbil alamina mbokk taalibe yi bu ngeen bisee jotaay bu rafet bii rek ngeen xam ni màggal gu mag gi màggal gu rëy gi màggal gu sëriñ Touba fekkee gi egseeti na muy màggalu Daaru Salaam mbokk taalibe yi bis bu mag bis bu rëy ci yoonu murit bis bu sëñ Tuubaa fekke màggal ko ak muritam yi mooy waa ji te képp ku ne su ma fekke woon fi ñu doon ganale sëñ Tuubaa ci Daaru Salaam danaa fa teew boo déggee sama baat màggal gaa ngi ñëw la 19 la sëriñ Sidi moom mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu jiite njabootu sëñ Gaawaat mi ngi woo ci ndigalu sëñ Muntaxa ak i ñaanam di sàkku mu ñaanal ko ba yen bi woyof di woo mbooleem gouvernement bu Sénégal gouverneur préfet région de Diourbel di woo ministre yi nga xam ni ñoo ŋànk affaire religion di leen woo ci màggalu daaru salaam bi di leen wax ni benn bunt rekk a fi nekk muy buntu boroom gaawaan te borom gaawaan mooy Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke di ñaan lépp lu ñuy def nañu jaar ci buntu kër gi di leen yëgal ni màggal gi nag ñi ngi ciy woo képp koo xam ni jullit nga amul tijaan amul murit amul layen amul xaadar ndax ñun ñëpp ay bokki juddit lañu waxta simu bi hablillahi jamian wala tafarraxu nanu xam ni ñun ñëpp lislaam rekk lañuy dund ndax inna inna lislaam nañu xam nit yàlla moom bindul nit ak ginne lu ñu jaamu ko kon nag ñu ngi ci woo ñëpp bisu zikkar la bisu sant yàlla la bisu dollee njukkal sëriñ tubaa la ndax ku xeexi ji woon ba gañe xeex bi ñëw ñu koy ganale fii ci Daaru Salaam borom ter borom teraanga yu rëy yooyu borom borom borom daraja ju rëy jooju borom jëmm ju rëy jooju kooku nga xam ne yàlla moo ko bind bind boo xam ne daf ko bind ba pare damm xalima gi mooy borom gaawaan 2 mètre 02 weex tàll gën a weexub tubaab kooku moo doon ganale borom Touba diggante Mbàkke ba Daaru Salaam ñu lal ko ay malaan di ko pomp sikkee ki miski ba sëñ Tuubaa dugg biir Daaru Salaam kon ñu ngi woo képp koo xam ne jullit nga nga ñëw wuy suñu ci bisu màggalu Daaru Salaam bi ku ñëw yàlla na yàlla defal jàmm ak tawféex ak taysiir bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sëñ Sidi mi ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa ñu tàllal suñu loxo sëñ bi ñaanal ñu yàlla